الحمد لله الذي لا نرجو منه إلا الرضا ونيل الجنة والنجاة من النار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم إخوة الإيمان ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي سبيل النجاة في الدارين والإخلاص لله سبحانه وتعالى قولا وعملا قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu borom subhaanahu wa taala moom mi nga xamee ni yaakaaruñu ci moom lu dul ngërëmam yàlla ñu yàlla gërëm yaakaaruñu ci moom it lu dul ginnaaw bi ñu gërëmee mu dugal ñu bil aljanna yàlla ñu ko yàlla defal moom yàlla bi nga xamante ni ginnaaw bi ñu gërëmee yaakaaruñ ci moom lu dul mu fegal ñu safara yàlla ñu yàlla fegal ci safara ñu seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhaanahu wa taala bokkaale ñeelu ko di seede ni muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamam la ndawam la yàlla ñu ko yàlla fayal moom ak i saxaabaam ak képp ku topp ci njubu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam booba yàlla suñu borom di doon suufam si ñuy dénk suñu bopp mbokk yi di leen dénk ragal yàlla subhaanahu wa taala ndax ragal ko moom subhaanahu wa taala moo ñuy jural texe ci àdduna fii ak ci àllaaxira ak sellal suñuy jëf moo xam ay wax la wala ay jëf yàlla suñu boroom subhaanahu wa taala mu ñuy dénk ci alquraanul karim dañuy wax ee yéen nit ñi yàlla boobu nit ñépp la woo woowul way gëm nit ñi la woo mu ni na ngeen ko ragal dëgg-dëgg ragal moom mi nga xamante ni moo ñu bind ci benn bakkan mooy suñu maam aadama kon faap foofu yàlla day wane ni ñépp ñoo bokk benn matière bu ñu leen bindee moom mooy suuf bi ñu bindee suñu maam aadama alayhi salaam mu jël suñu maam aadama alayhi salaam bind ci moom suñu maam xawaa mu bocc ci ñoom ñaar ay góor ak i jigéen yu bari nag yàlla di ñu dénk nag ni na ngeen ragal yàlla ci mbokkoo gi nga xamante ne nag moo dox ci seen diggante muy njabootu aadama ak awa yi te yàlla di ñu wax ne nag nañ ko bàyyi xel ndax mbokkoo gi dox suñu diggante yàlla dinañu ko laaj ëllëg te mu ngi ñuy fuglu mu ngi ñuy bàyyi xel ci lépp lu ñuy def mbokk yi suñu xutbay tey ñu ngi koy fas yéene amal ci al uxuwatu fillah muy mbokkoo ci yàlla muy benn bànqaas boo xamante ni yàlla suñu boroom mu ngi ko lëkkale ak gëm yàlla fa qaala subhanahu wa taala innama al muminuuna ixwa yàlla nee na way gëm yépp ay mbokk lañ mbokk googu nag mbokk yi yàlla suñu borom da cay def loo xamee ne ëllëg képp ko sàmm mën na laa jural texe ci yowmal axir boo ñëwee ci xadisu abi hurayra radiallahu taala anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ci jàngale ni am na juróom ñaar ñoo xamante ni ëllëg yowmal qiyaamati ci tàngooru jant bi am na ñoo xamante ne yàlla dina leen dugal ci suufu karu arsham mu lim ci juróom ñaar yooyu noonu rajulaani tahaabaa fillah ñaar ñoo xamante ne dañoo bëggante te yàlla tax kon da ngay gis ci mbokkoo gi ci gën a dëgër mooy ki nga xamante ni dañoo ñi ñi bëggante te yàlla tax ëllëg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla dina dugal ci suuf keru arsh googu noonu yàlla ñu ko yàlla defal lii di mbokkoo ci yàlla nag dafa am ay ay bànqaas yoo xamante ni faw nga sàmmoo ak loolu ngir ngën a nga mën a bokk ci ñi nga xamante ni leen di joxoñ ni ñii de ay mbokk la ñoo xam dañoo bokkoo te yàlla tax bi ci njëkk mooy almahabatu wa tanaasur fii ma baynahum lii tax seen mbokkoo dëgg mooy da ngeen di bëggante tout d'abord ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa yuhibbu ah laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li axiihi maa yuhibbu li nafsihi amul amul kenn ku ngëmam di mat lu dul li nga bëggal sa bopp da nga kaa bëggal sa moroom te doomu aadama bëggal na boppam wala bañal na boppam lu ne ba mu des njariñam kon njariñ googu nga bëggal sa bopp na nga ko bëggal sa moroom rawatina nag nga koy sàmm ñaareel bi bii tax ñu mën a joxoñ ñii ni dañoo bëggante te yàlla tax alal muta mutaaxiina fillah an yaxrisa ala tanaasux fi wal amru bil maaruf wan nahyi anil munkar ñi nga xamante ne nag dañoo wax ne dañoo bëggante te yàlla tax faw ñuy waxante dëgg faw ñuy waxante dëgg wa tawaasaw bil xaqi wa tawaasaw bi sabri sa mbokk bu dee ni da nga kaa yéene li nga yéene sa bopp boo gisee ci moom lenn loo xamante ni naka sudul noonu la na nga ko ca laaya biir waaye nag bil xikma mu ànd ak sagesse ndax léeg-léeg di nga gis koo xamante ne dafay gis naka sudul noonu ci mbokk jullitam mu bëgg koo dindi far yàq te ki nga xamante ni mooy le superlatif des infidèles muy firawna xanaa nit ci kaw suuf bonatul ba mel ni firawna te yàlla bi muy yebal yontu yàlla Muusa ak Haaruun ci firawna joxu leen benn ngànnaay lu dul wax ju rafet fa quulaa lahu qawlan layyinan laallahu yadakkar aw yaxsha kon yow lii tax sa mbokkoo ak sa mbokk jullit dëgg mooy nga koy wax dëgg waaye nga jàllale ko ci anam goo xamante ni anam gu yiw la anam gu tegginu mu bokk ba tey ci lii dëgëral mbokkoo ci diggante ñaari jullit an yudaafica kullu minhuma ala al axar wa yuxmi kullu waxidin minhuma al axar min altaaarud lilzulmi walqahr kenn ku nekk ci ñoom tamit di fegal sa moroom li nga xamante ne mooy ak lor ku gis lenn niy lor moo xam ak wax gun indi ci yow muy wax juy yàq ci sa mbokku jullit nee na wax jooju na nga ko téye laaye ko ci biir xamal ko ni ah wax ji du ci eggee ci ki ngay wax mën naa jur ak ñaawoo ndax lii di jëw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na a yuhibbu ahadukum an yaakula laxma axiihi mayitan fa karihtumu ndax kenn ci yéen bëgg na sa mbokku jullit faatu ñu teg ko ci jaag amoo benn pexe ci moom lu lu nga ñëw di dagg ci yàppam di lekk mu ni noonu la jëw mel ci sa mbokku jullit kon sa mbokku jullit bu kenn ñëwee di yox ci moom safaan na nga ko freiné ca la muy wax laaya biir ko ci mu bàyyi ko bu dee loru leneen tamit nga fexe ko cee taxaw défendre ko ngir lor ga bañ a eggati ci moom aqulu ma sami'tum wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين بوكي جنا بني سنت يالله سني بارم سبحانه وتعالى ني بارم من دفي ني نيوات دي وخني بانقاس يي ني وخ لغي تاموي جور fraternité muy mbokkoo ci yàlla tey lu bari ci àdduna bi nekk ay fitna yu bare bare bari li ko waral moom mooy ñàkk a sàmmoo mbokk googu yàlla wax ni nañ ko sàmmoo suñu diggante ñun de dund nañ ci ci ay bés yu néew loo xamante ni dañ ciy sant yàlla njëkk ci suñu dëkk ci bennoo bi nga xamante ni am na fi ñu suuxat ko ba xol yi ak xel yi ak suñu lépp ràbboo ba lenn lu na la jóge ci àll ba di ñëw fii dinañ taxaw def ci li su yoon saa salaam jàngale ni man raa minkum munkaran li ci njëkk mooy fal yu xayiru bi yadihi fal yu xayiru bi yadihi bu fekkente ni gis ngeen lenn loo xamante ni lor la lu ñëw nga gis ko nang ko dindi ak sa loxo bu fekkee ne mënoo koo dindi ak sa loxo nee na na nga ca wax te jàpp naa ni li doon raam di ñëw suñu dëkk bii ñu koy wax ubbi dëkk bu fekkul woon fraternité bi suñu mag ñi fi jiitu rabbe woon suñu dëkk bii kon tey jii mënoon nañu wax leneen wante alhamdulillah ci taxawaay bi ci jullit ñi ak ñi dul jullit sax taxawee ndaxte ki jóge ci àll ba fële ñëw ni dégg naa di ab tijji dëkk ñëw ni day tijji dëkk su doon li ñuy défendre suñu bopp mooy dañuy jël ay armes ñeneen dañuy xeex ak ñoom kenn du fi dëkk déedéet waaye dañu ànd ak dal ànd ak dal dem fañ war a dem yonent bi sallallahu alayhi wasallam de li yàlla jàngale bàyyi ko fi moom mooy nañu topp atiullah nañu topp yàlla wa atiu rasul te ñuy topp lii di waxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa ulil amri minkum bi mbir ma tàbbee fii suñu kaw li ñu njëkk a def mooy dañu contacter ci jiite réew mi ci ki jiite dëkk bi fii muy chef de quartier ñu wax ak moom ci lu jëm ci mbir mi mu jóg moonte ñu am ay nit lañ ñoo xamante ni bu leen neexoon tey tey tey tey tey ci bis ba gendarmerie nationale fees fi dal mais dañ ci ànd ak dal wax ca lañ ca war a wax ci dal ndax moo kii buñ fàtte ni ki dégg information daw ñëw mënoon naa nekk koo xamante ni dëkkandoo bu baax la waaye kër a ko jàpp comme kër ni ñu jàppee ak jamono ni méttee mu daw ñëw est-ce que biñ ñëwee dañoo xeex ak ñoom déedéet waaye dañ leen a dalal xam ne ne li ngeen dégg de information bu baaxul la li ngeen dégg du noonu taxaw ci taxawaay boo xamante ni ba na mbir mi di sottee ba nëgë ni si ñëpp amul kenn ku ci dégg leen ni fitna kon loolu. dafa bokk ci fraternité bi nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngal ñu suuxatee ko suñu dëkk bi di ñaan yàlla nag loolu sax si ndax amaana mënoon naa ñëw ñëpp dëkk ñu bañ ca mën dara fekk boobu mooy yaa ngi fi de waaye gis nga jàmm bi da ngay def li nga war a def rek li ci des yàlla moo koy mottali waaye ñaan gi ngay ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala ngir mu fekkal la ay lor ñaan googu jàpp nañ ne bokk li tax ba lor gi ñëw delluwaat na te amul benn fitna bu ci jug ñu delluwaat nag di ci jàngat jàngat bu gën a sori mooy ci àdduna tey fitna bi nga xamante ni mooy bi gën a màgg ci àdduna fi jamono ji mooy fitna yi waa Gaza fee ca Palestine moonte de nit ñi naroon def nii noonu dong lañ leen def ñun dañoo naroon ñëw tëj dëkk mais ñoom dañ leen fekk ci seen suuf sunu moom ci benn ci béréb yi nga xamante ni borom subhaanahu wa taala dakaa tudd ci alquran mooy masjidul aqsa ñun leen fii da ngeen fii jóge mbokk yi ndax foofu gënu la rëy wala mu gën a màgg suñu cité bi moo tax li ci gën a néew liñ leen mënal moom mooy di leen ñaanal borom bi subhanahu wa taala lor ba wàcc seen kaw mooy yahuud ya ak nasaraan yi jug ne dañ leen di faagaagal ba ñu jeex ba wallaahi démb moo ci mujj xale yi ñax ñax la ñuy dagg di ko lekk ndax amatul lu ñu dundee subhanallah ñax ñax yi wallaahi ñax la xale yi di dagg di ko dundee ak mag ñi ndax ñoom amatuñ lu ñu dundee amatuñu kàttan li ñu dese akas néew ci kàttan mooy di tàllal seeni loxo di ñaan suñu borom subhanahu wa taala ñii di yahudi ak nasaraan yal na yàlla neenal seeni mbir mbokk yi suñu fan yii ñu dund wallahi delloo wuma fenn kudul ci Gaza néewal doole gi ñuy néewal doole jullit ña fa nekk ak jàkk ju màgg jee di masjid Aqsa yonente bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn ku war a takk ngir tukki tukki goo xamante ni